pareil fi Dazalo da ko tak bañ ne làmb ji jeexna boy xolal xoolal caatu ngi ni mu retourné situation bi ba daan fi Dazalo. waaw dëgg gis nga lépp loo gis ne rek dal da ci am solo. dal dal da ci am solo. ana man ana yow xawma la xamoo mu mosu ñëw contact mosu ñëw beure mu ñëw bëgg la japp daan la si ay minutes loolu nekk. jaaduwul mbot di nga ko ciabaxal ba mu dem bay bëgg daanu daan daan la. waaw di nga ko mbot bu mu yaakaar daanu mu suruxal la. ak mo leer ko plaqué mu daan la. ak mo leer lamb so ci dem da ngay tey waaw dafa laaj daltee caatu ngeewal suñ doon benn voyage laa benn voyage assuré nag benn voyage non non non benn voyage mooy mooy jàpp daan jàpp daan jàpp daan addu bi sifflé na uncaa jàpp na ko daan mës nga gis loolu ku ko ku ko def caatu ngeewal mm, bu na combat bi taxaw ma def ko ok bu doon yàgg moom nga def ko ko addu bi nga jàpp ko daan eh, booy booy booy yof bi booy yof bi dafa naqaree lijjanti de ah booy boobu bi gën a naqaree lijjanti ok voilà qui est clair kon daal loolu derby mm. yoof mbëbës la Euh, caatu ngéwél yaa moom loolu Weuz jàmbaar ngeen la Weuz jàmbaar na jël avance ñeme woo jël avance Weuz jàmbaar ñeme woo jël avance man nii moom yi ñoom su ñu ma la limal nii kon ma si joxoon sa avance moom ñeme woo jël avance Weuz jàmbaar kontaanoo ma si làmb kon ma si gis ah, nga diggante ma koña deux waaw loolu gis nga diggante ak Mbaye Tine Junior digganteem ak Zoro bu benn braak Zoro sa grand ah, Zoro mi nga bokkaloon euh, euh, étude sa mbokk la gis nga ni mu def Zoro ah, gis nga ni mu ko def geste Shaolin yooyu xaw ma nan la xaw ma karateka la xaw ma. man grand break naa. ah ah daan nga break dance. du ne <laughs> la man maa gën a garaaw yaram bi li muy def lu ko raw def. sa diggante yàlla li nga su ko neexoon si làmb ji. Eh. su taxee ma def lu garaaw ni dëgg la ci yow. waaw Weuz Diambar. Uh-huh. ñëw na ñëw moom. avance Weuz Diambar bu duggoon Malika ña ña nga cee lekk dërëm. bu ñëwee dama koy tëdd nelaw lekk ba tëdd nelaw. est-ce que dina rees. naan ci boisson ba suur. est-ce que dina rees est-ce que dina rees. non day avance wóos jàmbaar. pour yow nga lekk avance wóos jàmbaar mu rees. day rees macha allah ce qui veut dire jour si. nga dem daan wóos jàmbaar. Euh, Ounthia nag yow yow yow yow je vais te suivre de près parce que fii nga nara a dugg nii. macha allah naka macha allah wax dëgg yàlla booy fii macha allah bulldozer très fort techniquement Ama Malika gis nga diggante ak Loobu Yoff ba ma wooyee avant combat bi grand bi maa loo bu yof ma ne ko moo la raw ci làmb de waaye yaa ko ëpp coow léegi nag ma ne ko ah yow yow ndof nga da ngaa ñeme risque amaa lu gën a métti loolu ko gën a gis nga dem na bëre daan sooxu malika jankalaar janqalaat gars yi naan dafa tuuti dafa tuuti mais dangar gi gars yi nee nañ jaan tuuti na waaye dangar baa ngi ci biir euh, sooxu fit bi moo rëy lu ko bëtam may fitam du ko ko xañ Aliou Fatfat gis nga pareil très fort techniquement ñeme na risque lool lool lool mais boo ñaa ay mbiram moo dëgër ñaa ay bagaasam ci boppam moo dëgër këcc këcc këcc mais ku jël càndum de càndum dee mi nga xam ne presque ñëpp ko fi bàyyi ñëpp boo ñaa jël son courage à ma mains jël ko mais nag lamb bi gañ bi perte la mais bëri nañ combat bu metti finalement ñàkk na bu mu découragé mais li ma la mën a wax mooy que ne saa même saay bi wax dëgg yàlla am na ay daanaan am na ay am na ay boo yu gëm seen boo yu mën a bëri ko parce que ndaanaan yuy coow yëpp saay bi la rootee malika la ñuy rootee am na ñuy dinañ ko g moom kenn waxaale wu général moom kenn waxaale moom da ngay am doole limal nit mënu ma cee indil doole ba yéem voilà c'est clair waaw mën na fos naturel doone mbëbës bi yaa jëfatee ma dara avance rakk ji euh, mbër mi question bu ma lay posé boo ko ci ah làmb ji wërngal këpp kan moo fi daax a bëri nga xam ñu war ngeen koy tàmbali daal kaw ba suuf man moom avant may bëri moom dama ko daan supporter sax ba ba coow ok Balla Gaye Balla Gaye question bi dafa leer tontul clairement kan moo dàq bëri ci làmb Balla Gaye 2 Balla Gaye moo dàq bëri ci làmb ji parce mu ko doon supporter avant may bëri sax mhm. te moom lu garaaw laa la expliqué moom ak Eumeu Sène seen combat bi mhm. premier combat boobu Eumeu Sène laa doon faral 2009 ba waaw mais bu ñu jógee si Eumeu bi mhm. dafa mel ni dañ mën a ma puusal Eumeu Sène nga di ko supporté nga ngay supporté Balla Gaye papa di su ma di ko jigéen di mooy supporté moo la mais daal moo daal moo dàq bëri ci làmb question suivant bi yow bokkoo ci ba léegi limal ma juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji Balla Gaye 2 ak kan ah, Moussa Ndoye ndaanaan la Moussa Ndoye bu yarax da nga koy dugal ci juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji ah, ñëwal Tidiane Faye ndaanaan la Tidiane Faye bu Lansar ñëwal ak euh, booy kii bi booy

entraînement moo jëpp solo. parce que mbër mën nga koo jàpp si musique ba yaakaar ni yaa ko mën mu daan la entraînement. ak moo leer ak moo leer. entraînement moo ëpp solo ci lépp. entraînement moo solo. kon kon ça veut yow boo gisee mbër buy entraîné da nga koy man mbër bu dajul li may daje góob ngay indi say affaire yi. mu jàpp ne ko mos a que dafa daj lu métti. voilà c'est mais daal entraînement daal te dina la joxe ko. déedéet déedéet liggéey lu métti moy tax nit ki taxaw ga xol xamne ki moy lolu parce que da ngay dem ci mara ñu jox la fa tàkkee nga tak fi ba dëgg mhm. jox lay sama no nagam ba nga bëre waaji ji te mi ngi ànd ak bu amé dola bu amé dola da ngay ànd ak jaamam li nga yaakaar sa laafa tax da ngay do disco ba disco disque du daanu ak amoo leer mankaan yi nga yaakaar day jabb du ko def dara mu bëre yow ak amoo leer kon entraînement mo fay né euh ben instant yow nga wara a bëre ji sa jour combat ñu woo téléphone né la allo mbër dafa am règlement bu bees bu wacc ñu né la yow sa bëre sa fit sa entraînement sa gàllaaj ñeent yi ñu ne la ñett yi nga yóbbu làmb ja nga bàyyi fi benn bi wala doo bëri ban ngay bàyyi sama sama fit sama galaj, sa bëri sa fit sa entraînement sa gàllaaj ñeent yi ñu ne la ñett yi nga yóbbu làmb ja nga mm. bàyyi fi benn bi wala doo bëri ban ngay bàyyi sama fit laay yóbbu ban ngay bàyyi ban lay bàyyi waaw bëree bi fit bi entraînement bi gàllaaj bëree bi fit bi entraînement bi gàllaaj waaw ban ngay bàyyi bu demee ba mën a ñaax moom gàllaaj bi lay bàyyi nga yóbbu bëri fit entraînement. nga bàyyi gàllaaj. Ah, parce que moom laa yóbbu sax man mii. ok euh, lu tax mënoo bàyyi bëri bi. waaw mënoo parce que moom laa mën. lu tax mënoo bàyyi entraînement bi. waaw dafa ne ci man moom laa bëgg moom mooy lu tax mënoo bàyyi fit bi. waaw fit bi moom mooy loo mooy song. voilà c'est clair. ba tax na daal gàllaaj ngay bàyyi su boobu. ba tey c'est clair. question bi leer na réponse bi leer na rakk ji bi nga dalee seetaan làmb ba tey ban combat nga def stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog télé bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko fàtte. mën ma ko fàtte si ay làmb yi ma daan dem seetaan. waaw waaw bari naa. làmb boo xam ne da ko seetaan que ce soit télé wala nga deme stade seetaan ko. jox ma ci benn bi la gën a marqué. waaw combat Eumeu Sène Gris Bordeaux. Gris Bordeaux Eumeu Sène. waaw combat 2000. waaw 2011 ba. combat le le cinq le le euh, mars 2005. waaw combat bu ma neex la. a marqué ci làmb. waaw jox ma ci benn ñaar yi ban moo la gën a marqué. ñoom ñaar ba jox ma ci benn. waaw bi ma gën a marqué mooy Ama Balde. parce que Malick Niang Ama Balde. waaw parce que première défaite Malick Niang. parce que ma nekk ay nit ñoo xam ne sax dañ doon jooy yaakaar dañuy rey euh, Ama Balde. voilà c'est mu bëree daan Malick Niang. Malick Niang taxawoon ci dix combats dix victoire kenn mënu ko yëngal. acca aji yof bi mbër mi a mais pël bi tamit kenn du moom. Ama Balde. waaw kenn du Ama Balde. am na fit. mën na na doole. ak moo leer. boobu la dafa neex a faral boobu gën a marqué ci làmb. daf dafa neex a faral loolu gars yi dégg naa ñu koy wax. Ama Baldé moom su neexee faral rek day ah, dafa neex a faral loolu dama koy dégg gars yi di ko wax. d' accord euh, beneen sens mm-hmm. yow sa wàll bopp bi nga dalee bëree mbappat ba arène ban victoire moo la gën a neex sa carrière. ban victoire moom gën a neex sama carrière. waaw ah. bi nga mujjee bëree. moo la gën a neex sa carrière bi nga dalee bëree ba tey. d' accord mais aussi bi nga dalee bëri. waaw boobu dama ñëw si làmb ji. Hmm. même ñi may introduire sax ñu ngi naan da lay dóor mu daanu de man nekkal ay champion fii sax hmm. ñu ne ma waroon sa waay. ndax moo la sut te dafa mën hmm. ay course yoo xam ne ñoo bokk kon mais yeneen la ñuy course. ñu ne ma adversaire bi moytul droite bi moytul lii. te man leen wax yow moo na et ma am ci mobilisation bu am doole sax. bu am doole. jàppale bi rek a des. xam nag làmb bu nekk wërsëgam mhm. souvent li ma sama gars yi rek mhm. ki yëkkati xaalisam may la ni mu tool bu ko xeewal mhm. su baree bu ko ko kii bu tuutee santal bu baree santal su ñëwul it santal waaw ndax tamit ñàkk jàmm loo ci am sante ko yàlla mhm. du ñëpp nag mën a joxe joxe si xol la waaw waaw am na ñoo xam ne balaa ñu lay mën a jox rek nga doon champion ñu a ñëw loolu kay bul sonal sa bopp ñi si jàpp di am occasion pour sant gërëm mais aussi bi nga dalee bëri aussi mbapat ba arène ban defet moo la gën a métti sa carrière. ban defet moom gën boo xam ne ba tey fii la des boo xam ne ba tey jàllul. waaw mooy man ak Lat Dior. bi kon daal ma ne victoire bi la gën a neex sa carrière ban victoire la nga ne. mooy sa diggante ak Modou Yacine. boobu la gën a neex sa carrière. ñu bëri jàpp jàpp nañu ne damay daan. da nga dem bëree daan. defet bi la gën a métti sa carrière. Lat la instant sa diggante ak Lat bu école Balla Gaye mais bu ñu fa jógee damay xaw a génn tuuti ci làmb ji dugg sa vie privée euh, raka ji da ngay football. waaw tuuti rek. tuuti rek. waaw su dee Sénégal bu jot su moom temps équipe nationale Sénégal mais à part ça amoo benn équipe ci équipe yi boo xam ne moom nga supporté. équipe bu sénégalais nekk laay supporté maanaam Paris ak Liverpool. Liverpool mais yow sa équipe ban équipe la ban équipe ngay supporté. ok euh, mën nga ma limoon cinq joueurs Liverpool Liverpool ah. waaw xaw ma ci ñu boo yow supporté woo Liverpool yow Sadio Mané ngay supporté. ok yow ba liggéey bi nga def moom rek laay yow daal Sadio ngay supporté. waaw ah, moom rek mais su ma la laajoon àdduna wërngal këpp kan mooy sa joueur préféré. waaw Sadio Mané. sunu international. moom mooy sa joueur. àdduna wërngal këpp. coow jibul ça c' est clair. Euh, Raka ji question suivante bi damay dellusiwaat euh, Sénégal fii ah kan mooy sa waykat kuy way nga kontaan. waaw fii artiste yi ñëpp samay waykat la. waaw mais di nga ci am kenn koo xam ne waaw dañoo am fu ñu jaar muy Sidi Diop. Sidi Diop waaw dañu dama ko fekkoon bu dara dul dara boobu bëreegum aran mhm. boobu tollagul fii mhm. ma fekk ko benn mariage bu ñu doon way mhm. benn baraat boobu ñu jógoon xew jaar fa ñun ak suñuy xarit ñu doon juróom personne jaar fa gis ko muy woy lu neex buñ taxee déglu woy bi day neex bu daanalee ñu avancé mu tegaat beneen woy ñu ñëwaat mujj gi dañoo taxaw mun ñoo dem ma ci biir géew bi yëkkati xaalis may ko ne ko yàlla na la yàlla jàppal yàlla na la dégg fu sori moom it mu ne ma yàlla na la yàlla na nga doon champion bu mag boobu doona ko moom boobu